bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayyidina wa mawlana muhammadin il amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurr al mayamin wa ala khayri khadimihi dhil habli al matin wa ala man iqtafa atharuhum ila yawmiddin wa ko julli di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi nu sante sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal al Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara te ndokkeel ci weeru tedd bi ñaan sunu Boroom mu nangul nu koor gi nangul nu mboolem jëf yu baax yi te dàqal nu balaa bi ñaana Seex Muhamadu Muntaxa sunu Boroom yàggal ko fi lool te dolli ko wér bu ma mboolem ay naalam ak yéeneem ci toolub lislaam ak ci liggéeyu Seexul Xadim bi di ko ñaanal njabootu Sëñ Tuubaa gépp di ko ñaanal sunu bopp nu tarbi Sëñ Tuubaa yëpp Eh, di dese yéen ci seen émission Fardul Hayni tey jii di gaawu di fukki fan ak juróom ci weeru koor wi eh, ci bind yi nga xam ne ñu ngi ko doon fàttalee ba weer wi teroo ba tey bis bu nekk ci waxtu wi seen télévision Lamp Fall seen mbokk sëñ Mor Mbacke di ko taxawee ñu ngi yemoon ak yéen démb ci fi ñu doon leerale nag ku jum ci julli nu mu koy defaree. xamle woon nañ ne ko dolli ku ne baax da ngay sujjóot ko wàññi ku ne xab la ngay sujjóot ko boole dolleek wàññi xab la ngay sujjóot ñu leeraloon itam ne e, ku fàtte sujjóotub xab la tey xab la boo xam ne bàyyi lu man ñetti sunna ko waral nga fàtte ko lu yàggut lu yàggut danga nga koy sujjoot su yàggee nag julli ga day yàqu kon faaw danga nga julliwaat waaye su fekkee day xab la boo xam ne la la nga bàyyoon benn sunna la benn sunna la wala wala ñaar rek yooyof nga fàtte ko ba xas yàgg julli ga baax na sujjoot ba wàcc na la waaye su dee sujjóotu baat na moom boo ko fàttee lu mu yàgg-yàgg doonte sax mat na at mbaalu ko ëpp danga koy sujjóotal du wees leeraloon nañ ne it sunna rek lees di sujjóotal farata sujjóot mënu koo defar ndax dafa diis kon faaw da ngay indi farata ba ba joxe joxewoon nañ ci misaal démb ngëneel dafa woyof ba jarul sujjóot kon rekk rek lese sujjóotal kon farata soo ko bàyyee faw da ngay indi farata ba su ràkka ba weesoo ràkka ba nga ko bàyyi weesoo da ngay dagg ràkka bi mooy da nga koy folli indi beneen ràkka bu ko remplacer ci biir julli gi soo noppee nga sujjóot ba de ngëneel soo ko fàttee jërul sujjóot julli gi julli gi dara siku ca kon li ñuy su sujjóotal julli mooy mooy mooy mooy sunna sunna yi leeraloon nañ ko lu dul nag lu ne suñ ne bu ne suñ bàyyi suñu waxee bàyyee benn sunna bu mu ko sujjóot benn sunna dees ko sujjóotal lu dul nag muy sunna bu dees lu mel ni biral walla yalu soo bàyyee biral mooy fa fa waroon biral soo fa yaloo da ngay sujjóot fa waroon a yalu soo fa biralee da ngay sujjóot baada su dul ñaar yooyu nag foo foo bàyyi benn sunna rek doo ko sujjóotal waaye am na yooyu ku bàyyi sunnaam bàyyi nga ñaari sujjóot bàyyi nga ñaari sunna ci ko fàtte taayay digg bàyyi nga sunna taaya akub jotaayam ndax taaya sunna ab toogaayam sunna la mbaa yu mel noonu ku wax ci biir julli na te jum waral ko danga wax ci biir julli lu ca bokkut dangaa faat dangay julli nga wax ak nit fekkee juma ko kon baax da ngay sujjoot ndax da ngaa dolli mooy da ngaa dolli julli lu ci bokkut kon baax da ngay sujjoot ku sëlmal ci ñaar rakka tam waroon ko ëpp dangay ngay julli timis julli ñaar defe ne mat na nga sëlmal mbaa gee mbaa da ngay julli tisbaar am ñaar sëlmal taay yu njëkk dal ci nga sëlmal ci julli ko ëpp ñaar rakka nga sëlmal ñu sàbbaal la mbaa nga fàttali ko da nga naan ñokket kàbbaraat indi la des ca julli ga soo noppee nga sujjóot ba'da salaam ndax da ngaa dolli ndax julli ga am na ñaari sëlmal kon su mottalee ba'da salaam moo koy defar ku jum nag ba dolli ñaar rakka ci julli mbaa benn rakka da ngay julli timis wala julli ñett juum julli ña juum juum teg ca benn muy ñeent mbaa da ngay julli gee julli ñeent def ne matul nga dolli juróom benn juróomeel wala juróom wala sax dem ba juróom benneel te lépp njuumte waral ko loolu lépp baax dara nga koy sujjóotal waaye ku ca dolli lu toll ne moom julli ga yàqu doon ko leeral ci fan yu weesu soo doon julli timis ñett ñett la nga julli juróom benn julli ga yàqu na gee ñant la soo ca dollee ñant julli ga yàqu na walla di sabab ma takkusaan suba ñaar la soo ca dollee ñaar muy ñeent julli ga yàqu na kon julli gum doon soo juumee dolli ca la soo ca dolli lu toll moo xam njuumte la moo xam tey la julli ga day yàqu waaye nag dolli ga su fekkente ne ak tayaf la donte benn rakka képp nga jëlal te tey ko julli ga yàqu na moom su naan soo ca doolee ñaar ak ñett da nga si jotal loolu euh, fàttee tax ñuy wax waaye su fekkee tay tayef la timis ñeent la yaa tay dolli ca benn muy ñeent julli yàqu na gee ñeent la yaa tey dolli ca benn muy juróomeel julli ga yàqu na su fekkee tayef la nag moom li fekk aggut ci dolli ga lu toll ni lu toll ni rakkaay julli ga rek baax da la bu xasee toll nag julli ga yàqu na da ngay julliwaat kuy sikk sàkk julli ga mat naa matut day jàpp ne matut day jël tisbaar dama yaa ngi sikk sàkk man ñett laa amam ñeent jàppal ne ñett la nga dolli ñeenteel sujjóot baxda lu tax ngay sujjóot baxda mooy mën naa am matoon na xam nga da ngay sikk sàkk mën naa matut kon da ngay jàpp ne matut nga mottali sujjóot baxda da tax baxda bu may mën naa am matoon na te bu fekkee matoon na rek kon dolli am na moo tax ñu ci sujjóot loo da ku xamul wàññi naam wàññiwul day dëggal wàññi gi julli gi mat naam matut day mottali day kon waxtu nekk rekk saa boo sikk sàkkaa ci mat ak ñàkk a mat da ngay da ngay notal ñàkk a ñett la am ñent jàppal ñett la julli gi mat naam matut jàppal ne matut nga mottali su jot baax da kuy sikk sàkk sëlmal naam sëlmal dangaa toog yàgg yor yor sa kurus ba yàgg na moo man ndax sëlmal naa sax neel asalaamaaleykum rek mu jeex dara waru ci yaa ngi fi ngay doon jullee ba yaa ngi sikk sàkk sëlmal nga sëlmaloo neel asalaamaaleykum rek mu jeex dara waru ci waaye su fekkee yàggagul nag moo tax ñuy wax yàggagul waaye su xasee su yàggee nag moom ah ba da dangay da ngay Euh, su nag fekkee dafa jot ngay génn jàkka ja daal yàgg na rek kon julli ga yàqu na dangay ngay julliwaat ku bari lu mu xelam di jaxasoo nga xam ne julli gu ne rek dana ci sikk sàkk am naa lii yam ëmmalee xam da koy dal ci julli gu mën a doon kon dañuy wax ne kon dootu dootu dootu dootu eh, jàpp lu néew di motli waaye sopp nañ ca woon julli gu mu salmal gu nekk na su jot na na ko su jotal baax na kon ku xelam jaxasoo lu bare bare bare bare lu tegaloo moom du ko def waaye nag sopp nañ julli gu mu salmal rek na su jot baax na waaye loolu dañ ko sopp ci moom maanaam waru waru sopp la waaye nekkul waru nag waru waru waru farata ku bàyyi xunóot njumte waral ko bu mu ko sujjóot bàyyi ko te tay ko nag dañ koo sib waaye yàqut julli ga bàyyi ko nag ko dañ koo sib waaye yàqul julli parce que fekkee da nga ko bàyyi ci fàtte nag dara waru ca nanga fàtte xunóot dara waru ca mooy li ma doon wax ci njaal bi ci eh, njaal bi émission wax ne wax ne nga neel daa woyof ba jarul sujjóotal soo ko sujjóotee sax sa sa julli yàqu kuy sujjóotal nga neel sa julli yàqu kon su bàyyee xunut e, ngir njuumte wala boog dafa dolliw saar ci rakkab ñetteel mbaa ñeenteel xam nga julli gu ne ñaar rakkaay njëkk yi rek lañ jàng faatiha ko saar waaye bu ëppee ñeent nag julli gu ci maanaam rakka bi ci toppati doo dong lañ ca jàng rakka bi ñu war a jàng faat soo jumee jàng ca jàngale ci aw saar maam it dara waru ca def nga lu ñu sib waaye julli ga yàquwut dolli ko te tay ko it dañ ko sib soo ko soo si juumee dara néew ci soo soo soo ko tayee nag def nga lu ñu sib waaye julli ga yàquwut ba tey koy julli dégg ko ne Seydina Muhammad nga ne sallallahu alayhi wa sallam te fekk yaa ngi ci julli gi nga ne sallallahu alayhi wa sallam julli ci moom loolu dar dara néew ca yàqul ci julli ga dara moo xam bi nga wax dangaa taxaw moo xam da ngaa rukon moo xam da ngaa sujjoon moo xam dangaa ngaa toog fu mu la fu mu la mën a fekk ci julli gi nga dégg tur yonent bi ci moom loolu mooy itam dara waru ca ab sujjoot ca julli ga dara sikku ca loola moo xam daa juum moo xam da ko tey dar waru ci mooy julli gi nga julli ci yonent bi saa sa nga dégg ko tudd fekk la ci julli moo xam yaa ko tey moo xam teyoo ko dara néew ca ku jàng ci rakka ñaari saar walla wala lu ko ëpp mbaa nga tàmbalew saar jeexut nga dagg ko tàmbali weneen mbaa nga tàmbalew saar jeexut nga dagg ko rukon yooyu yëpp dara waru ca ku junja bopp ci julleem junja bopp da ngay julli am ku ne diw néew fee nga ne nii dag-dagal woon néew fi mbaa nga ne nii loolu muy muy muy junja bopp eh, wala loxoom wala sa sa loxo nga ne nga ne nga def nii loolu sujjóot waru ci donte donte sim nañ ko nag waaye sujjóot waru ci ndax dañ ko jàppe lu woyof ku juum baa mu faatixa ñaari yoon dangay sujjóot ba'da salaam ndax nga faatixa farata la farata na ku ko dolli dolli farata ci julli bu dee njuum te dangay sujjóot ba'da salaam soo ko tayee julli nga yàqu kon ku juum ba fa baa mu faatixa ñaari yoon ba'da lay sujjóot waaye su fekkee yaa ko tay nag yaa ko tey julli ga yàqu na koo xam ne danga dafa lunk jëm ci rukkoo lunk mooy ba nga demee ba ni nii rek jëm ci rukkoo nga xam ne juñu nga ba jëm ci rukkoo bi eh, sam xel na yar ci ne ci ne eh, biraloo mbaa yelowoo dangay taxawaat may may mooy bal àggale rukkoo ba kon da koy baamu su fekkee rukkoo xagul as dama dama jum fekkee jot naa lung fekkee jot naa lung nee nii xelam dem ci ne euh, euh, biir lu nga yëluwut du siggiwaat day continuer day continuer rukkoo ndax lu ko waral la nga dëgmal faratala la muy rukkoo te biiral mbaa yàlla sunna la te deesu dëgmal farata di ci départ di dellu ci sunna moo tax kon day continuer day day day day continuer ma jot naa lunk rek na continuer dem ruko yi te jàpp ne nag bàyyi na bàyyi na biral mbaa bàyyi na eh, bàyyi na yàllu su ko dee ab sujjóot ko cay xaar su bàyyee yàllu ma xam ne ab xablaa nga koy xaar bu mu war a sujjóot su eh, fekkee yàllu la bàyyi na xam ne kon ab baax daa nga koy xaar su fekkee biral la bàyyi na xam ne kon ab xab laa nga koy xaar kon day kon ne gileem rek sujjóot baax da wala xab la ba fekkee laataa muy muy lunku nag saa daa daan yar ci daa daa daa kon na ko baam waat daa waroon biral tam yalu ko na baam waat biral ko su fekkee daa biraloon te war a yalu na baamuwaat yalu ko dooru ko te xam ne nag dolli na kon léegi day sujjóot baax de salaam loolu fekkee ca saar wa dong la xew maanaam dalu ko ci faati ci saar yu dong la xew moom la jum biral ko mbaa mbaa yalu ko kon day da koy baamu te sujjóot du ca war waaye su fekkee ci faatixe jële nag moom kon da koy baamu sujjóot baax da sujjóot baax na ndax baamu gi baamu faati te faati farata la la tax ñu mbay la baamu ga mooy la nga waroon biiral mbaa nga bàyyi ko kon danga nga koy baamu def ko na nga war a def xam nag dolli nga nga sujjóot baax da waaye su fekkee saar wa na ci la xew da koy baamu rek waaye sujjóot sujjóot waru ca dara waru ca yooyu nag mën naa bàyyi xel baax na ay sew sew la ci biir sujjóot fekkee da ngay ba noppi nag rukkoo dem nga bu rukkoo fàttaliku ne biraloo mbayaloo ba tey mook àtte ba nga lunkee la mooy sujjoote jawar rek nga naa ba nga lunkee rek sa xel dem ci dooroo delluwaat kon rawatina ba nga du ko waxee ba noppi sa xel door dem ci ne yelluwoo mba biru biraloo kon da ngay continuer sa sa sa julli sujjoot baax da sa baax da salaam su fekkee yàllu la maa nga sujjoot xablu su fekkente ne baax la <coughs> moom nga bàyyi su fekkee biral nga bàyyi baana salaam nga sujjóot su fekkee xa fekkee yàlla nga bàyyi xabla salaam nga sujjóot moo xam nag ca faatiha ja la mbaa ca saaroo moom nga fàtte ba xas moom ba su ba xas sujjóot ba noppi lu ñu ci mën a doon baax dab mbaa xabla ba rek moo ca war koree ci julli xàqataay julli ga yàqu na ñépp dëppoo nañ ci su fekkee teyul reeje dëppoowuñ ci ñii dañ na yàqu na ñeen yàquut gannaaw wute am na am na ci rek mooy mooy wóorut su dee tey gi moom xaaxataa tey comme ñëpp dëppoo nañ ci ne julli yàqu na fekkee teyu ko nag ñee nee nañ yàqu na ñeen déedéet yàquut tayit Sëñ Tuubaa mi ngi leeral ne ci nax ju ci ci jaxur na fiis ne rees julli moom ko bew tey ku sàggan ku jëmul fenn rekk moo koy def neen ku sàggan ak ku bew képp ñooy rey ci julli ak woyofal diine ak ñeme yàlla ndax yàlla ku ko ragal boo xasee ba dugg ci déeyaaleeg moom ndax julli déeyaaleeg yàlla la nga xam ne bi nga ne nii say loxo kàbba dangaa war ne sànni nga àdduna ak li ci biiram ci sa gannaaw bu fekkee am nga benn respect ci sunu borom subhaanahu wa ak ragal ko yaakaar naa sa xel daa nekk ci leneen lu dul loo xam ne lu lay lu lay lay reeloo lay doon kon ku sellal te ragal yàlla saa bu duggee ci julli day feral ab xolam ci àdduna génne ko ci ba mu set wicc lépp lu dul yàlla du ko bàyyi xel du ko xool du ko xalam day bàyyi àdduna ak lim làmboo lépp ci gannaawam ci yitte yeeg dootu geesu dara day gumba ci lépp loolu du borom subhanahu wa taala màggu borom subhanahu wa taala moom lay teewlu ci ab xolam ci waxi dëgg yi génn ci làmmiñam muy alxuraan ji muy jàng nga xam ne ab xolam dafay mujj di lox ngir ragal yàlla ngir xëybatul ilaahiya gi nga xam ne moom la moom la jànn lool ci déyaale gi muy déyaale moom mooy tax al nga xam ne eh, mooy mooy mooy li tax mën a teewul mag borom subhaanahu wa ba ab xolam nga xam ne eh, bakkan bi dafay ragal alkande ëllëg ba tax du genn ko leen lu borom borom subhaanahu wa taala suñ ba doon ci melal ne Cheikh Omar Fuuti yu taal mi nga xam ne dafa mbubboon ragal yàlla xam-xam ragal yàlla neen si si si neen Cheikh Omar Fuuti daa waxoon ne soo tabbee su julli na nga mel ni jëmm joo xam ne faatu daf koo teewal fekkoon dañ la ne boo sëlmalee rek léegi ngay faatu ne julli waaye boo sëlmalee ngay faatu na ngay bàyyee xel yàlla ci sujjóot gi ci ci julli gi na koy teewloo na nga koy bàyyee xel na ak ak gi ngay àndal nee su ragal yàlla suy julli noonu lay mel te waay ragal yàlla yi day ñoom noonu noonu jullee moo tax nag ñoo taxe ñoom la suñu borom dëxal àjjana saa bu tuddee aljanna tekki na allati wa'idal muttaquun àjjana yi jëñ dig waaye ragal yàlla ya kon ñoom lañ ko dëxal kon yàlla na suñu borom wërsëgale ak dëggu wasale wasagale ni itam dëdd adduna ak ragal yàlla ak wóolu ci bépp natt te defal nu ak yéeg ci dara yooyu kawe waaye su fekkee dafa muuñ rek ci julli gi muuñ moom yàqul julli jërul su jotit mooñ rek ci julli yàqul julli taxut maanaa waralut sujjóot itam tabum ko baamu it jéggale nañ jooy yi ngir ragal yàlla ki jàng aay bi sumbam di tëgg ko ca sawaraak bis fi ci ni mel nga nga ngay jooy ngi ragal yàlla jooy yooyu yi donte ànd nag kàddu sax jéggale nañ ko ci julli dara waru ca te bëgg nañ ko sax nag surtout bu dee naafile ngay ngay ngay jooy dañuy wax ne soo mënta jooy sax nga jooy jooylu waaye tam ku déglu tuuti ab xibaar nanga jël bi yàgg nga dégg am lu rajo bi rajo bi wax nga ne tek as ndiir déglu ko tuuti continué waat loolu itam yàqul ci julli dara ku am ñaari rakka waroon toog far jóg maanaam da ngay julli tisbaar ba am ñaari waroon toog far bi nga sujjootee nga ne ñokkeet jóg sa xel dem ci maanaam da nga ne bëreet rek laata say wóom ak say loxo di teqali ko suuf sa xel dem ci toogaatal toogaatal taaya dooru jóg <coughs> te dara waru ca nee nga ne bërit waaye say loxo teqali ko guddi suuf say wóom wa teqali ko guddi suuf toogaatal taaya waaye su fekkee loxo yeeg wóom yi xas nañu teqali ko suuf nag sa xel dem ci bul toogaat di continuer taxaw daal bàyyi xel nag léegi bàyyi nga taaya akub jotaayam kon bàyyi nga ñaari sunna yu feddli ko kon da boo boo sëmmalee da nga sujjóot baax da salaam xam eh, xabla salaam boog laa bëgg a wax soo ne ñokket ba say woom ak say loxo teqali ko suuf sa xel ne yar ci na taayi woo da ngaa waroon taaya bul toogaat de continuer taxaw soo àggalee sa julli soo mot motu ñaar rakaa yàlla des na nga sujjóot xabla salaam ngir bàyyi nga bàyyi taayay digg akub jotaayam su fekkee dafa dellu toog na maanaam da nga ne da nga ne bërit loxo say wum ko so nga toogaat moom ab sujjóot waru ca dangay ngay taaya rek àggale sa julli dara waru ca ndax bërit jooje dañ ko jàppeloo yof dafa woyof moo tax sujjóot du ca war ca loola su fekkente nag na neenal buñ dellu bul dellu xam nga nee nga bëreet ba say loxo texli so ak say bëtiw mu nga ñu ne la bul dellu su fekkoon nag dangaa dellu dangaa def lañ la tere mooy dellu kon léegi ab baax daa cay war ndax ak dolli la ndem dafa dellu nag ci bi mu teqali ko ak suuf sa kon kon kon ñaari at da da da da da koy da koy da koy songu mu njëkk ma su fekkee dafa jiitu ak yamoo mooy danga ne laataa ngay yamoo laataa nga daan tekk ca taxawaay ba la dellu su jootu baax moo cay war ndem dafa temm nag dafa dem ba ne temm nag taxaw nga ba ba ba ba jàng ba jàng fàtte ak war caa topp Euh, nga dellu fa ba tey dolliku biir la mook beete ba tey ñoo rek mooy lu ñu ci doon baax da ngay sujjóot ku juum ba ëf ci julli ni ëf moo xam aw melentaan daa nekk fi nga war a sujjóot nga ëf ku mbaaloo mën a ëf rek su dee tayaf julli ga yàqu na soo ko tëjut tëjut ba tey saa ngay sujjóot kon soo amee lu lay gaañ ci fi ngay julli mooy danga koy toppalee sa loxo waaye waroo ko ëf ëf te tey ko ci julli kon day yàq julli su soo ko su dee njuumte la nag sujjóot baax na sax ëf dañ ko tolloo léegi wax dañ ko jox àtteb wax waaye ëfug gimiñ lañ si jublu nag ëfug gimiñ waaye su fekkee ëfug bakkan la dara waru ci yàqul julli warul sujjóot su fekkee da ngaa tisli ci julli gi bul wax alhamdulilahi rabbil alamin xam nga dañoo sopp ci ab julli bu ne bu tisee mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ku ko dégg ne ko yarxamukallah mooy mu dellool ne la yaxfirullaahu lana walakum wala yahdikumullahu yuslih baalakum fekkee da ngaa tisli ci ak julli nag jëru nga koy jëru nga naan alhamdulilahi alamin ku ko ne yarhamukallah it ku la ne yarhamukallah it doo doo ko delloo la ko war a delloo yooyu doon ndokkeel ku tisli kon bul ne yarhamukallah bul soo tislee soo déggee ku tisli ne alhamdulilah bu ko ne yarhamukallah soo tisee ku la ne yarhamukallah it doo waaye nag soo ko defoon nit nag du yàq dara ci julli ga kon ci ñaanu bis bi ñaan gi dañ ko toxale ci ñaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne allahuma akthir maali wa waladi wa barik lii fii ma ataytani mooy yow sunu borom yàlla na nga baril sama alal ak samay doom ta nga barkeelal ma lépp loo ma jox allahuma akthir maali wa waladi wa barik li fi ma ataytani allahuma akthir maali wa waladi wa barik li fi ma ataytani lu mat di lu mat di jàngale kon dana dolli wërsëg dana dolli njaboot ñëpp dëpp nañ ci xadiisu bis bi mooy yonent bi saas ndaa wax ne idastasanta ahadakum idastasanat ahadukum imra idastasanat ahadakum imraatuhu ilal masjidi fala yamnauha ma baam ko idastasanat ahadakum imraatuhu ilal masjidi fala yamnauha képp ku ci soxnaam tàggu jëm ca jàkka ja bu mu ko tere ku ci soxnaam tàggu jëm ca jàkka ja bu mu ko tere am na beneen xadis bu ko dëgëral xadis ba mu waxoon ne laa tamna'u imaa allahi masajid masajidallah bu leen tere jaam yàlla yu jigéen yi jàkk yàlla yi xadis boobu sa Saalim moo ko solo jëlee ci baayam muslim man uh, muslim moo ko solo uh, kon ñu ngi leen tàggu fa incha allah bu soo jàmm ci waxtu yi seen télévision Lamp Fall TV ñaan li gën ci ñun yàlla nga sunu boon defal dëppale ko li ñu gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yaa